noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu doole ko xéewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baat tukki mbokk yi réew mi jamono yu mujj yii am na yu fi xew yu doy waar te doon lu lu metti te mooy ay jëf yooyu day tasaaroo ci réew mi tey wone rek doyadal gu ñu doyadal bakkanu doomu aadama yii ay rey lay doon ñu rey ay nit ñii di rey seen bopp muy di xaru ñii di fekk ñu aju xettali ñu sàggane leen bañ leen a xettali bañ loroo ci yooyu yëpp day wone woyofal ak doyadal makkanu doomu adama duggul nag fii ci lu waral loolu waaye li nu bëgg fii rek mooy wane war ma ji yàlla jox bakkanu doomu adama ak it war ma jooy ku ko xët la ko cay fekk war ma ji yàlla jox bakkanu doomu adama jox ko alalam jox ko ab deram war ma jooju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy wone ci aj gim ajoon jiite jullit ñëpp wax ak ñoom waxtaan woo xam ne da tënk lépp lum mu leen bëgg a bàyyee mu waxe ko ci anam gu doy waarit ndax dana leen waa wan weer ngeen xam muy weer wu ëpp worma ci weer yépp boobu weeru ki lañ nek ci la ñu nak ah sun weer yu xana weer wi ñu nek te mooy weeru ki mu ne len ban bërepp ban dëkk ngeen xam muy dëkk bu ëpp worma ñu nak ah xana sun dëkk bi te mooy makka mu ne len ban bis ngeen xam muy bis bi ëpp worma ñu ne ko ah, xanaa suñ bis bii nu nekk boobu yàlla dogal na mu nekk bisu rafa nekkoon bisu ajuma itam yooyu mu boole yépp lu ci ne dafa ràññu ko ci biir lam bokkal ci war ma joo xam ne yàlla daf koo jox jum joxul ñam bokkal mu ne leen nag na ngeen xam ne seeni bakkan ak seeni alal ak seeni der war ma ji yàlla jox yii la ko jox war ma ji yàlla jox weer wii nu nekk muy weeru tabaski jox ko dëkk bii nu nekk muy màkka jox ko bis bii nu nekk muy bisu ajjuma di bisu Arafa war ma ju tol noonu la yàlla jox seeni bakkan ak seeni alal ak seeni der bi mu ko waxee mu daan ne ndax jottali naa ndax jottali naa ndax jottali naa wax ko ñett yoon saa bu ko xam ñu nag jottali nga kay jottali nga kay mu ne nag rikk rikk nag bi ngeen xamee lii bu leen fi jógee nag di rayanteeti seen biir bi ngeen xamee war ma ji yàlla jox seeni bakkan jox ko seeni alal jox ko seeni der bu leen fi jógee nag di reyanteeti bu leen fi jóge doonati ay yéefër nga xam ne kon day mel ne di rayante wala di xëtt war ma yii da ko nuróole aku kéefër fu koy def day mel ne dafa dellu ci kéefër mu ne kon bu leen dellu nag ci kéefër di xëtt war ma yii ginnaaw bi ngeen ko xamee nii alxuraan tam yàlla won nañu ci ne rey benn bakkan ci lu dul yoon ku ko def mi ngi mel ne dafa rey nit ñëpp ci àddina sépp loolu kon nekkul lu woyof nekkul lu tuuti yàlla ci alxuraanul këriñ ci béréb yu bare bari lanu moytuloo loolu lanu moytuloo rey bakkanu doomu aadama ci lu dul yoon waaye wone na itam ne ku ko def payam gam yeyool payam gam yeyool mooy mu yàlla rëbb ko mooy soril ko yërmandeem mere ko ba noppi tàbbal ko sawara mu sax fa loolu la yeyool buñ ko doon fay lam yeyool loolu lañ koy fay yàlla nag mën na ko bañ a fay loola waaye loolu la yeyool ci pay ku rey nit ci lu dul yoon te tey ko loolu la yeyool yàlla rëbb ko soreel ko yërmandeem mere ko tàbbal ko sawara mu sax fa yonent bi tam woon nanu na ci bàkkaar yi gën a gën a mag la bokk ginnaaw bokkaale da ko caa teg door caa teg sax dënge ñaari way jur te dënge ñaari way jur ku ne xam naa ni ni ni mu ni mu toll waaye yonent bi dafa wax ne bàkkaar yi gën a gën a rëy mooy bokkaale ak yàlla ak rey bakkan ci lu dul yoon ak dëngee ñaari wayjur teg ca ak seere lu dul dëgg te loolu nu wax nag ci rey bakkanu doomu aadama te tey ko moo fekki ku ñu war a xettali te nga mën koo xettali sàggane ko bañ koo xettali ba kanam des ca du ñu soree du ñu soree ndax loolu ku ko defit na xam ne kon la mu def ak rey bakkan doomu aadama ci lu dul yoon ñoo yem rekk noo ngi ñaan yàlla mu dimbaleenu ba li nu war a sàmmee bakkani doomi aadama yi war maal ko mu dimbaleenu ban koo ban man koo defee noonu yeneen yi mu jox war ma yépp itam mu dimbaleenu nu mën a war maal li mu jox war ma lépp li ko ñaan mu defal ñiw àddina gu mu musal nu ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil nu bunt yiw yi mottali sunuy mébét soob nu cig njub may nu fanu gudd ak wér ak muñ gu rafet